aw ndët woo xam ne yàllaa ko sàkk mu dëkk ci géej moom aajowul rendi ndax meddum géej dagan na li ki ñuy jëfandikoo jën waaye nag mu ndët woo xam dafa dëkk ci suuf si bu lislaam ne dagan nañu lekk ko itam lekk ga da cay sars ñu rendi ko bu ñu nee rendi nag dafa am ñeenti façon yoo xam ne bu ca nekk xeetu rendi la te lu ca nekk dana tax loolee dagana lekk li ci jëkk mooy rendi bi nga xam ne moom nga miin moom la wax sax ci way wi ne dëgg-dëgg rendi mooy nga dagg boole ga ak yaari sët yi nga xam ne ñoo ko séq te dagge ko ci kanam bu tàmbali woon ci dox ga di dagg ba agsi ci bële ga ak ñaari sët yi dagg ko it du ko tax a baax te aajowoo rend bi mu rendee ca kanam fa nga xam ne fa la bële géeg yaari sët yi di nekk foofa lay teg jumtukaay ja muy rendee di dagg nag ba bële ga lépp dagg yaari sët yi ko siq itam lépp dagg te nag bul yëkkati loxoom maanaam bu xasee tàmbalee rendi bu yëkkati loxoom waaye loolu am nag teqale lay bon daal mooy mu rendi ba sori ca rendi ba ba noppi yëkkati loxoom te yéex a dellu si bu mu xës yàgg wala moom bu amee lam doon rendi médd na waaye su fekkee ne yëkkati na loxoom waaye yeggut ni ki day paakab ñaari boor mu doon rendee ca boor bee wëlbati far jël boor ba ca des wala paak boobu ñëwut mu teg ko fee jëlaat beneen wala paak bi ñëwut mu daal di koy daasaat waaye diggante bi dara yeggu ci boobu yëkkati loxo du wàññi dara waaye daal bu fekkee ne rend na ba sori ci rend bi nga xam ne su bàyyi woon moom day dee te fekk nag ak gutoon ndax jotu gutoon dagg léppi boliga ak yaari sa di ko séq moom bu yëkkatee loxoom tam yàgg mu door a dellu si rek bu ko àggalee itam tutee fekk na mu métti ba noppi kenn du ko lekk waaye moom jàppal ni saa yu gaawee dellusi rek ak lu tax mu yëkkati loxoom doonte sax coobareem la it waaye gaaw naa ñëwaat àggale rendi ba rek dana baax nga takk foofu itam ne su tàmbalee rendi waaye soriwul ca rendi ba nga xam ne su ko bàyyi woon moom day dund di wéy gannaaw ba kon bu yëkkatee loxoom te yéex a dellusi itam du wàññi dara ndax dañuy jàpp ne moo ku tàmbalee gutoon a rendi ñooyamoo nga xam ne bu ñëw nga xam ne bu ñëwaatee day wax bismillaahi yéene yéene ji yees fas yéene rendi nag bu fàttee nag wax bismillaahi ndax bismillaahi ci njëkk ja wàcc nañ ko moo ji waxutoon la ñemale bu fàttee wax bismillaahi fàtte gaay tax du teelam rendi baax na rendee nag ci jumtukaay ju ñaw lépp lu ñaw rek loo xam ne mën naa rendi rek baax na waaye nag weñ gu ñuul ni ki paaka lañ ci gën a taamu ndax daal weñ gu ñuul mooy gën a ñaw mooy gën a mën rendi ba waaye bu daasoon aw doj ba mu ñaw mën a xotti itam mu xottee mooy mu rendee ci dojo itam du ko tee baax li ñuy bañ nag mooy lu mel ni xale bi jàpp picc rek daldi jekki-jekki foqar ci baat ba sànni fee mu tàggu jëmm ja loolu bu ko defee médd lay doon kenn du ko lekk yéenee rendi maanaam jublu ci ak rendi mënu caa ñàkk ndax bu doon dóor lu la di lam ko doon dóor am ñaw ka dal ca baat ba ba dagg boligaak yaay sëti ji ko siq itam ndax ñu tuddee ko ak rendi médd lay doon ndax moom jubluwutoon a rendi daa tombe rek mu dóor ñaw kalam dóor nag dal ca fañ war a rendee ba mel ni daa rendi waaye moom jubluwutoon a rendi loolu médd lay doon faaw day aajowoo mu jublu woon a rendi tudd ji tur yàlla nag moom bu fekkee ne fàttewu ko du mën a ñàkk su fekkee fàttee tax moom dana baax bu fekkee ñàkk mën a wax bisimilah moo tee mu wax ko it ni ki ab luy it dana baax waaye mu tey ko nag mën a wax bisimilah te waxu ko wax ji gën a wóor ci yoonu Maalik du baax kenn du ko lekk gannaaw ba mu xamlee rendi ci boppam mu wax nag jëm mi koy rendi mooy kan kay rendi bu ko see nekk julit duñ ca sart muy góor mën naa doon jigéen duñ ca sart muy mukallaf mën naa doon gone dañ ca sart daal mooy na amuk xàmmee li ko dalee gone itam na àgg ci xàmmee te it bu dofee wala mu màndi bu rendee du baax ndax ñàkkam ñàkk ànd ak sagoom bu ñu nee nag kay rendi bu fekkee du jullit faaw day war a nekk ci diine joo xam ne ab jullit mën naa takk jigéen ji ca bokk loolu mooy kon kay rendi bu du jullit faaw day nekk rek yahood mbaa nasaraan ndax ab jullit bu dee takk soxna benn day takk jullit ne moom mbaa mu takk ku nekk ci diine yahood mbaa ku nekk ci diine nasaraan waaye suñu ta takk kuy jaamu xiram wala ku nekkul ci genn diine kon ci gàttal mën nga ne kay rendi bu fekkee du jullit waaye yahood la mbaa nasaraan bu rendee la mu rendi ab jullit mën na koo lekk ci kaw sart yi ngay bëgg a dégg ba ci jëkk mooy na rendee ni nga xam ne moom la lislaam waxe mooy rendee ca kanam baat ba te dem ba dagg poliga ak yaari sadiid ya ko séq te ba muy rendi mu bañ a tudd turu aw xiram bañ a tudd turu yonent yàlla xiisaa dong mbaa turu yaayam rek muy Mariam lay baax mooy na tudd turu yàlla ba tey nag bu boolee turu yonent yàlla xiisaa ak turu yàlla wala mu boole turu yaayi xiisaa Mariam ak turu yàlla ba tey lam ren di baax na ndax dañu ëppal boole turu yàlla wa dali ko far daganal te it yahood ba mbaa nasaraan ba la mu rendi doon loo xam ne buñ ko seetee ci nam gisee ci diineem ak buñ ko seetee ci ñu nu alxuraan jàngale mooy lu dagan ci moom li ki bu dee yahood alxuraan dana wax ne nu wa ala allazina haadu xarramna kulla zi zuhur wa minal baqari wal ganami xarramna alayhim shuhumahuma إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بحظم سنبرم داني يهودي سينو كاتور تخنا مو أراما ci ñoom loo xam ne ñu teey la waaye seenu bona tax mu mbugale leen aay leen ko araamal ko ci ñoom te loolu mooy lépp yàlla sàkk te weye taqaloo maanaam waaye tàggali ko wut te loolu mooy lu mel ne gëléem ak kanaara mi ngay gis ak ñuy wax uwaa ak baa yooyu yëpp seenuwee dafa taqaloo waaye tàqali ko wut yooyu araam na ci yahoot ba tey ci nag ak xar ak bëy bi cay gewees gu sell nga xam ne bokkut ak nga jaxasoot yax wala kees ka nekk ci gannaaw ga bu bokkut ak yooyu yaar rek ci gereesug nag ak xarag bay suñ borom da ko araamal ci ñoom borom sara bi sax moom day wax ne ndegam gerees kooku dañ ko araamal ci ñoom ba tey bàyyi ko ci yëhoot doo ko sañal ak yooyu jullit waaye wax ji gën a wér rek mooy jëm yi ñu araamal ci ñoom mu yooyee nga xam ne seeni we dafa taqaloo yooye moom buñ ko rende woon ñoom it yow jullit bi doo ca sañ a lekk xarak bayit nag nag ndegam dafa amuk teqale suñ leen rendee ba àggal am na ci gerees goo xam ne araamal nañ ko ci ñoom am na ci goo xam ne araamal nañ ko ci ñoom niñ ko teqalee léegi ga yàlla araamal ci ñoom la ñuy sib la ñuy sib mu bàyyi ko ci yëfóot yow jullit bi nga di ko lekk nga boole ca ne bu fekkee ne yëfóot ba mbaa nasaraan ba moom aawalut medd kon faaw la mu rendi bala ko ab jullit a mën a lekk aw jullit dafay teew ba muy rendi ñu gis ne rendee na na lislaam waxe waaye nag moom kuy lekk medd na mu ne rek ñu rendi naa ko du doy kon ci gàttal da ngay wax ne koo xam ne du jullit lay tax ab jullit mën a lekk lam rendi mooy day bokk ci diine yahuud mbaa diine nasaraan te la mu rendi boo ko seetloo ci pas-pasu diineem seet ko it ci ñu ko alxuraan jàngale muy mu dagan ci moom te it ba muy rendi mu tudd tur yàlla kese mbaa boog mu boole tur yàlla ak leneen yépp des na ko mën a lekk mais bon daal mooy mu tudd turu xiram rek mbaa turu xiisaa rek mbaa turu yaayu xiisaa rek ba nga tudd yàlla nga boole ca ne bu dee kuy lekk nag médd faaw kon ba muy rendi ay jullit ñu maandu dafay teew ba nga xam ne rendee na na lislaam waxe bu ci sart yooyu dajee rek la ñu rendi ñoom yahuud ba nasaraan ak jullit man koo lekk bu sart yooyu xëttee nag lu mu rendi ak jullit du ko mën a lekk kon mën nañoo far waxaale foofu xeeti yàpp yi nga xam ne dañ koy def ci ay kees wala ci ay paquet ak ñu mel noonu mën naa am ñu koy maye mën naa am ñu koy jaay àtte bi mooy bu ñu wóoree ne lu dagana lekk la ci lislaam ni ki du mbaam xuux mbaa lu koy nuru wala lu njëkk xam mu wóor na nu ndawalug nu ab jullit sañ a lekk la buñ ca boolee xam ne nag dañ ko rendi bu wér wér lu lislaam bëggee ni kii lu bàyyi ko ci màkka loola kon ab jullit sañ na koo lekk lu dagan la xeeti yàpp yi bàyyi ko nag ci réewu tubaab yi wala sax ci réew yu jullit yi nga xamee ne buñ sàmmoonteeg àttee lislaam yooyu moom moomata teewlu suñu wóoree ne nit ñu rendi la na lislaam waxe ñu rendee na te it ka ko rendi benn ab jullit la wala boog yahuud la mbaa nasraan la te it mboolem sarte yi waxoon yépp daje na ca kon dal nay dagan ab jullit sañ na ko lekk suñ wóoree ne kenn rendiwu ko mbaa boog rendiwuñ ko ni lislaam waxee mbaa boog ka ko rendi du ab jullit du ab yahood du ab nasaraan leneen la ba tey kon ab jullit bu ko sañ a lekk mu wóor ne kon lu araam la ci ab jullit mu des nag buñ ci amee kumpa xamul xamunu ba xam ndax ren nañ ko wala rendiwuñ ko xamul it buñ ko rendee ka ko rendi ndax jullit la mbaa yahoot mbaa nasaraan mbaa leneen nga xam ne daal xamuñu ba xam sart yi daje na ci wala dajewu ca loola moom moo di ñu lënt hadis ba nag daa wax ne mbir yi da ci am yoo xam ne mu yàlla daganal la te mu fës ñu bari xam ko mbaa ñëpp xam ko am lu araam loo xam ne it noonu la mel ñu bari xam nañ ne lu araam la mbaa ñëpp a ko xam mu ne waaye nag ci diggante bi am na fi lënt loo xam ne ñu bari mën nañ koo umpale duñ xam àtte ba ba xam dafa dagan wala dafa araam loolu nag nee na ku bëgg a mucc da nga koy moytu waaye boo ko jegee rek soo tuur da nga dugg ci lu araam dafa mel ni nag jullit ñi dañoo xaw a sàggan lool ci googu wàll maanaam ci rendi na lislaam waxee te lislaam moom mu daganal ci xeet yooyu itam day wax ne dagan gi niñ ko teg ci kaw ñu rendi ko bu fekkee rendi wuñ ko rek dagan googu du ci am rend gi rek mooy la koy daganal kon nag jullit ñi war nañoo sàmmonteeg loolu di xam ndawal gu ne balaa dugg ci réewum jullit mi fan la bàyyi ko ak ndax jaar na ci yoon wala islam bëgg wala jaaru ca bu ca jaaree ñu bàyyi mu dugg bu fekkee jaaru ca ñu bañ ne du dugg li ci xaw a doy waar nag daa mel ne ba ci réew jullit ñi dañu am ay mesures yoo xam ne ñoom ñooy féetewoo ren bi nee nañu machine bi bu jurut liggéey ba taxaw fi kanamam day daal di këpp rek bopp bi mu tàggali ko jëmm ja nga xam ne boobu ren di moom dëppoo tëg lu lislaam santaane dañoo waxoon ne am na ñeenti façon yoo xam ne bu ci nekk mën naa lewetal mundët wa ñu koy tuddi ak rendi wax na ci benn nag mooy rendi bi nga miin mu jàll si ci loj loj mooy bu dee dëleema loj rek lañ koy def ndegam jumtukaay ja am na fa te mënees na ko loj nag mooy nga jël jumtukaay ja jam ko ca xóot xóot bu nekk ci dënn ba mu dem ba laal xol ba mu daal di dee loolu moo tudd loj gëléem moom rek lañ koy def nag nag la wax ne mën na yaar yëpp nag mënees na koo loj mënees na koo rendi waaye dañuy wax ne alimaamu Malik rendi moo ko gënal ci nag téew nag nangu na itam loj ga bu dee gàtt nag muy xar ak bëy ak xeeti ganaar yeeg ganaar yeeg yooyu miin kër gi ak lu mel ne bu dee rëbb ci àll ba tey jekku na mu rëbb ba mën koo rendi yooyu yëpp dañ leen di rendi moom kenn du leen loj waaye nee nañu bu ñu nee nàngam dañ ko war a loj bu daan woon ci mpax te mënees koo loj waaye mënees na koo rendi kon rendi ga dal nay doy bu ñu nee nàngam dañ ko war a rendi itam ni kii xar mbaa bay ak lu mel noonu bu daanoo ci mpax te mënees su koo rendi waaye mënees na koo loj ba tey kon buñ ko lojee mu baax mu des nag bu fekkee ni nam daanoo ca pax ma mënees su koo loj mënees su koo rendi lañ man mooy jam ko rek noonu ba mu nàcc ba faatu am na ñu bari ñu wax ne loolu kon du ko taxa dagan waaye ibnu habib moom ngi bokk ci kilifa yi ci yoonu Maalik moom nee na ah kay mu des na koo jam ba deret génn ba mu faatu rek ñu lekk ko ndax loolu laay sàmm alal ja te suñu borom dafa bëgg ko sàmm alal bañ koo yàq bañ koo sànq nee nañu nag ku yóbbu jàpp ci waxam jooju ndax ak yaatal la te lislaam ak yaatal la lañuy rendi la wax ne mën naa am mu wér dara dalu ko mën naa am mu wéradi wéradi ga mën naa àgg ci buñ ko rendee mu dee buñ ko rendiwut mu dee foofu am na teqale lu wér moom buñ ko rendee deret sotti ko rek dal nay doy dagan na ñu lekk ko waaye waaye nag lu wéradi moom lay tax mu baax mooy bañ ko rendee deret jane paf mbaam mu yëqu bu baax a baax waaye lu wéradi buñ ko rendeete deret ja néewul paf yëqu wul bu baax rek kenn du ko lekk bu fekkee jur ga dafa lekk nag liy tax biir ba néew di fodo daan dañ koy boole ci xeet yi tawat nga xam ne buñ ko rendee deret tuuru rek du doy dana aajowoo mu yëqu bu baax a baax mbaa deret ja ne paf génn génn bu am doole bu ñu nee lu tawat ak lu tawat ji metti metti nga xam ne buñ ko bàyyi itam day dee rek ñu wax ne buñ ko rendee rek bu deret ja ne paf wala bu yëqoo rek bu baax a baax mu doy dafa am yoo xam ne alquran da leen a tudd ràññeel leen ñu am seen àtte bopp loolu moo tàmbalee ci xurrimat alaykumul maytatu waddamu wa laxmul xinziiri wa maa uhilla muy ba ca wa maa akala sabuhu dolli ca illa ma zakkaytum araamal nañ ci yéen médd suñu leen koo jëfandikoo teg ca deret ju ñu fis deret ju ñu fis waxoon nañ ko ci gannaaw mooy deret joo xam ne bu ñu rendee rek mu tàmbalee sottiku wala bu jëmm ja gaañoo mbaa ñu jam ko rek mu tàmbalee nàcc loolu mooy deret jooju sobe la araam na ñu lekk ko kum takk sax te nga mën a tàggoog moom doo ko sañ a julliwaale dafa jàll nag teg ca loo xam ne dañ koy rendi dañ caa tudd tudd lu bokkute yàlla ni ki aw xiram mbaa yonent yàlla isa mbaa yaayam mariam te tuddaale wuñ ca turu yàlla mu tekkee nag lu xerandiku ak lu ñu fàdd wala lu barastiku bàyyi ko ci kaw daanu wala loo xam ne moroomam da ko doon daan wala lu aw rab jàppoon tàmbali koo lekk yooyu yëpp daa wax ne araama lañ ko ci yéen teg ca nag mu nay ngeen rendi leen ngeen leen rendee moom danañu baax waaye foofu nag settee boobu mu wax ca lay dellu illa ma zakkaytum settee boo ko déggee mooy wax lu mat ñaar mbaa lu ko ëpp dugal leen ci ab àtte maanaam jox leen benn àtte gannaaw ba am koo ci génn mbaa ñoo ci génne mel ni nga ne ñu nekkoon ci jàkka ja ñëpp nekkoon taxaw di julli ba mu des góor a njaay kon góor a njaay ba nga waxee dugal nga ko waaye génn nga ko ne moom bokkutoon ci ña taxawoon di julli loolu la ñuy woowee seetee bu jokkaloo ndax seetee mën naa jokkaloo mën naa dagg jokkaloo nag mooy kañu génne ne leen bokkut mook ñen ko génne ñoo bokk wenn xeet mun xatix nag seetee bu dog mooy bi nga xam ne ñañu génn ci àtte ba ak ñuñ tuddoon bokkuñu aw xeet mel ne dem ne ña nekkoon ci jàkk jooy ñëpp taxawoon di julli mu ne nag ba mu des mbaam ya nekkoon ci bitti mbaamu ne ba mu des xar ya nekkoon di for ca wet ga kon xar yam génn wala mbaam ya bokk ñoo xeetu nit ñoom doon wax loolu moo tudd mun xatiya bu ñu nee settee bi fii dafa jokkoo mooy illa ma zakkaytum jooju lañ ci jublu mooy yeemu tudd kat bu fekkee ne pàddu ya demut pàddu ya mooy yi nga xam ne boo xasee gaañ ci jëmm ji rek day dee faw yooyu la ne kon bu fekkee pàdd ya gaañu wut kon bu ngeen leen rendee dagan nañu sañ ngeen leen a lekk waaye nag su pàdd ya xasee dem moom su pàdd ya xasee gaañu rendi ga du ci amati njariñ mëdd na ba noppi su pàdd ya xasee dem daal moom jeex na rendi ga du ci amati njariñ du ko taxa dagan kon nag xàmmee pàddu yi dana ci baax daa wax ne pàddu moo juróomi yi yuq ga nga xam ne moo nekk ca dox ga jàpp ci yaxub gannaaw ga bu xasee dog loolu pàddu la yaari sadiit yi nga xam ne ñoo séq bëli gi bu ca genn rek dogee pàddu la rawante na ñaar ñëpp dog muur ga ca doj ba bu tasaaroo ba tey pàddu la muy ñett yëfi biir yi niki xol bi ak res wi ak li ñuy wax roño yi muy rein yi yu mel noonu bu fekkee jóg nañ seen place te mënees leen faa delloo ba tey loolu pàdd la muy ñeent li ñuy wax mbaambuxe nag su bënnee doon te bënn ba bën bën bu sew la it pàdd la juróom yooyu muy pàdd yi nga xam ne kon da ngay takk ne lépp lu wépp ak lépp ja metti metti nga xam ne buñ ko rendiwut day deyit bu tee rek moom mënees na koo rendi te bu deret jënee paf wala bu yëqu bu baax a baax rek ñu mën koo lekk ba mu des nag ñi nga xam ne moom alquran da leen a tudd ràññee leen ba noppi teg ca illa ma dakkaytum yooyu moom da ngay wax ne lay tax boo leen rendee mu baax mooy kàddu yi nga dégg léegi benn bañ caa gaañu maanaam benn bañ caa laatu waaye yooyu mu tudd moom bu fekkee ne benn ca kàddu ya laatu na rek gaañu na rek jeex na rendi ga du ci am jëriñ jàpp nañ ne ñëdd la ba noppi gëléem wala nag loo ci lot dañoo sopp nga bàyyi ko mu taxaw te bu dee gëléem nga nga bañ koo yësal bu dee nawa itam nga bañ koo tëral sopp nañ nag looy rendi nga tërale ko mu tëdd wetuk càmmooñ te jublu xibla boole ci bu fekkee da nga di ab càmmooñ nag nga xam ne càmmooñ ngay rendee moom say boo tërale ko wetu ndeyjoor ndegam noonu rek nga mën a rendee sopp nañu bërëb ba nga xam ne ca ngay teg ñawka la di rendi nga leeral ko li ki bu dee ganaar nga suqi foofu ba derway feeñ bu dee xar wala leneen te foofu bari kawar nga wat ko ba nga xamee ne foofa dana leer te it jumtukaay ja nga xam ne moom ngay rendee nga daas ko bu baax a baax ba nga xam ne booy rend rek mu daal di gaaw a dagg da nga doon rendi daal di nopp lu fa saasa sopp nañu nag bala nga koo rendi nga wan ko ndox ba xam dana naanam ndéet te boo ko dee tëral fii suuf itam nga tëral ko ndànk na nga moytu jekki-jekki ni ko pëlit fab koog doole dóor fi suuf rek loolu ñàkki teggin la ndax addis ba daa wax ne inna allaha kataba al ihsana ala kulli shay fa ida qataltum fa ahsinu al qitlata wa ida dabaxtum fa ahsinu al dibxata wal yuxidda ahadukum shafratahu wal yurix dabixata seen boroom dafa bëgg ci yéen leen lu ne ngeen koy def ngeen rafetal ko kon bu ngeen dee rey na ngeen rafetal reyin wa bu ngeen dee rendi na ngeen rafetal rendin wa kenn ku ne ci yéen na daas ñaw kàmbam ñaw bu baax a baax ndax mu nofal la muy rendi bu rendee dañoo sopp mu bàyyi ba la mu rendi woon sedd mu door a tàmbalee fees mbaa mu door a tàmbalee dagg waaye rendi seddagul sax mu daal tàmbalee dagg mbaa mu tàmbalee fees sib nañu ko ndax day doole mettital lam doon rendi ñu gas rek menn pax te du kenn rek ay rendi ñaar mbaa ñett ñooy rendi ñu wër nag pax ma di rendeendoo sib nañ ko ngir yaar benn ba mooy yéen ñi rendi dana ci am yu jubluwul xibla ndax ndegam pax mi men la te dañ koy wër bëgg deret ji di sotti ko ci biir pax ma dana ci am yoo xam ne buñ leen dee rendi duñu jublu xibla te dañoo soppoon jublu ga xibla ñaareel ba mooy gisante ga ñuy gisante lu ñu war a moytu la ndax yàlla dafa leen defal ak yëg buñ gisee seen moroom ñu koy rendi loolu day metti ci ñoom bu ñu rendee lu jigéen fekk mu ëmboon bañ ko feesee fekk doom ja dee ci biirub yaay ja dañuy seet bu fekkee ne cër ya matoon na kawar ga itam saxoon na kon mënees na ko lekk ndax bañ rendi yaay ja mel na ne rendiwaale nañu ko su fekkoon ne nag cër ya matut mbaa kawar ga saxut ñu fekk ko mu dee ci biir yaay ja moom kenn du ko lekk suñ ko fekkoon ci biir yaay ja muy dund it faaw dañ ko war a rendi door koo sañ a lekk bu ñu yéexamtaloo ba mu dee rek kenn du ko lekk bu ñu yéexamtaluwul nag doon jël paaka bi bëgg rendi rek mu far dee kon des na ko lekk day mel na rek bañu rendee yaay ja daa far bokk ca rendi ba